turu Nafi Diallo ma ne ko man du ci yey du ci yàbbi il faut ma am lu wóor lu may teg sama loxo balaa ma ciy wax te defe naa tey l'histoire nous a donné raison li nga xam ne moom mooy xew ci senegal ay doomu aadama mën a jàpp doomu aadama tey mu doon sa doom bu subaa mu doon sa noon boo jogee na nga ne ni ñaa leen di saaga kenn saagawul kenn fii kenn saagawuleen fi dëgg bi rek la ñuy wax te yàlla tax doomu aadama naka ngay solee blouson di daw daw tout le territoire national ne Ousmane Sonko na ñëw jàppale leen na ñëw waxal leen fa nga xam ne foofu ngeen di campagne Ousmane Sonko jog campagnal leen ba ngeen falu ngeen jog wor ko am na fi beneen responsable taxawu Sénégal bu nekk fii ci Amérique temps yi ñoom ñëpp ñu ngi diil ak gouvernement wu Macky Sall au détriment des sénégalais xam nga man moom comme li ma leen wax man du ma waxandu ndax man la ngeen ma xamee démb moom ngeen ma xamee tey nee naa leen man sama bakkan bi joxe naa ko addiya ñun on n'est pas ñu nekkuñu ci ay ay tappale déedéet tey les personnes qui complotaient qui nous disaient des secrets de la politique ñoom la de ñoom ñooñu daan wax man mii xam nga man li neex ci sama wax lépp a ngi fii ku ko weddi rek ma indil la say say waxi dem ndax déggoon ngeen fii ndaw soosu nekk euh, ci con euh, maanaam assemblée nationale saagakat ba ba muy génn di am jigéen yi muy saaga fii ci Amérique di leen wax lu ñaaw lu nekk kenn ki di Omar jaw sekk mu génnoon fii wax yu ñaaw yu ne teg ko ci deru benn doomu Adama ñuy ñoom kom dañu doon lekkante en ce doomu aadama boobu daan génne ay secret di ñu ko indil wax bu ñaaw bu ne indil nañu ko nag ñu enregistré yëpp teg ndax xam nañ ne senegal sénégalais ñu ci bari dañuy wor man ku wax ak man ma xam ne workat nga li nga wax yëpp dama koy denc ëllëg ak sibir boo waree nga nekk ci sa jikko jaam yooyu di wax say waxu naxa sa xàndang ma indil la sa waxu demb yooyu tegal la ko sur le plateau yow nga déggal ko sa bopp ñun ci réewu démocratie la ñu nekk fii ci Amérique senegal amul lu méngoog démocratie Macky Sall mi ngi assassiné sénégalais yi Macky Sall mi ngi sacrifié sénégalais yi ñoom politiciens yi ñu ngi deal ci seen biir muy kalifa Sall muy beneen côté PDS beeg muy nangam ñu ngi diil ci seen biir au détriment des sénégalais nee naa leen responsable PDS moo ma wax lii. sama diggante ak yàlla ak sama taraay bàmmel mooy waat bi gën a sérieux billaahi wallaahi tallaahi lii responsable PDS moo ma woo wax ma ko yàlla dimbali na ma nag lépp li ñu wax mi ngi fii léegi waa PDS bu ñu génnee démenti ma génnee teg àdduna bi dégg waa taxawu Sénégal kii ma leen di wax nii ndaw si mu nekk Amérique di toj dëkk bi bu génnee weddi ma génnee teg ndax man moom damay na tekk rek di bàyyi nit ñi dof doflu ndax xam naa ne réseaux sociaux mooy attekaay bu mag bi tey Sénégal réseaux sociaux mooy suñu juge lii rek moo ñu dimbali bu du loon réseaux sociaux yii ni kon ñun dee nañu ndax bu ñu defee seen ñaawteef Sénégal buñ ko defee midi balaa midi et demi ñu génnee lépp teg ko ci kaw table gars yi dañuy woote nag ci diaspora bi marche marche bi gën a mag ci histoire jasporaa sénégalaise samedi bii lañ ko woote Washington DC am ngeen sama numéro bi am ngeen ay numéro Sali Diop wala Ndey Rama wala ñoo leen am rek numéro yi ngeen am yëpp wala Marie Jeanne contacté leen leen pour ñun New York ñun ñi bëgg a jël bus ñun ñëpp ñu daje fale ci association sénégalais yi mais dañu bëgg a yéen ñëpp ngeen defal ma présent Ousmane je veux partir Ousmane je veux partir bindal leen ma message boobu rek Ousmane je suis partant Ousmane je suis partant sénégalais yëpp dajaloo samedi ci suba ci association sénégalais d'Amérique ñun ñëpp ñu déparé foofu jubal dem Washington DC ci fële nga xam ne moom mooy ambassade Sénégal buñ fa jógee ñu doxee fa dem Maison Blanche parce que dañu bëgg suñu suñu message bi jàll dañu bëgg message bi jàll département d'état Amérique tamit man ngeen leen bind ay lettre bind leen neleen leen le gouvernement Sénégal ñoom bind nañ ko déjà ci seen rapport bi ñoom bind nañu déjà rapport bi nga xam ne nee nañu gouvernement Sénégal délinquant lañ gouvernement Amérique bind nañ lool bëgg naa doomu sénégalais yi tamit foo leen mën a nekk ci àddina te ngeen nekk ci jafe-jafe te ngeen nekk ci persécution def leen asile politique senegal du de kenn du delloo nit Sénégal xale yi jóge Brésil ak xale yi jóge ci yeneen réew ak bu leen kenn xoqotal foo mën a ne ci réew mi demal nga defi asile politique Sénégal parce que ne leen buñ la yóbboo Sénégal dañ lay faat senegal day kill 80 people in our country and locked up 1200 people dem bindu asile politique dañ lay may bul déglu fen yi ngay dégg ci rajo yeeg ci télé yeeg tappale yi ngay dégg kenn du delloo doomu sénégalais Sénégal guddi yi ñu toll manul nekk je suis l'exemple vivant gouvernement Sénégal amul lu mu jéemul ci man zéro def leen asile politique nous on est des sénégalais et on est des patriotes et on défendra notre patrie voilà ku am pour marche marchal ku am pour manifeste manifestel buñ la tiital déedéet man maa la garantiral ne xam ngeen sama avocat bi déjà Craig xam ngeen yeneen avocat wu immigration dem leen fa ngeen def asile politique senegal ne leen ñu ngi rey ay nit kenn mënu laa def dara dañuy fen rek lii ngay dégg ñuy wër ci dëkk bi wax yëpp ay tappale la asile bu senegal ku ko def dañ lay may këyit Canada boo leen ma gëmul dem leen ngeen laaj suñu mbokk yi ne Canada c'est confirmé aux États-Unis c'est confirmé en Europe c'est confirmé képp ku def asile politique ndax Sénégal fi mu toll nii nekk na dëkku masiba dëkk boo xam ne dañuy boom ay doomu aadama di disparaître loo ay doomu aadama fay nag seeni ay chroniqueur xam ngeen ñi may wax fay seeni ay chroniqueur yoo xam ne genn wàll gi ci ñoom bëgguma sax manquer respect yeneen doomu sénégalais yi di wax ay pathologie waaye xam ngeen ki ci gën a fës mooy ki yàlla def nii mu yor làmmiñ bi rek maanaam làmmiñ rek la la dese amul leneen ci moom loo xam ne utile la jëkkëru tubaab bi ko wut sax pédophile la parce que dafa am forme xale dafa mel ni xale bu am deux ans wala trois ans léegi tubaab yi xam nga ñoom dañoo bëgg affaire euh, molest children moo tax moom jëkkëram takk ko pour mu koy molester moom jëkkër ji bu koy tëdd day mel ni kuy moleste xale parce que amul ween awro yi euh, maanaam lépp yaram yëpp dafa dajaloo mais mu yor làmmiñam làmmiñ bi mën naa taal Sénégal kooku ak ñeneen ñoom ñooy taal Sénégal cette pathologie là ci tabouret lay toog mesuré wul un mètre nag elle ne mesure pas un mètre mais elle entre de brûler la pays mesuré wul un mètre waaye kooku mooy lakk Sénégal fi mu ne moom moo leen yoral seen micro di takk micro di wax ay waxu terroriste fàtte ngeen fi man biñ ma fi jàppee biñ ma accusé terroriste def nañ ma fi sax guinéen man xawma lan laa méngoo ak gine on m'a même fait un guinéen man waxuma la sénégalais de mais sénégalais proud mois je ne suis pas seulement un sénégalais mais je suis un sénégalais fier de l'être mooy fu ma dem ci àdduna bi àdduna bi yëpp xam ne sénégalais na maanaam Sénégal sama patrie la sama fierté la te tey ni mu mel neexuma dara non ki mu doon xam nga ko jarul tudd tur léegi yow xoolal ci réseau bi yëpp ban nit mooy mesurer un mètre te di toog ci tabouret te amul ween pomme lay jël walla wala ay ay njegenaay bu jëlee ay dra wala ay ay affaire lem dugal ci ay affaire am comme mën a niroo nit te ñu xam ko te boo ko xoolee dëmm lay gën a niroo sax ka doomu aadama dëmm lay gën a niroo doomu aadama muy duula ka sos fi mu toog day wax ba maanaam day ngemb ngemb lay sol parce que tubaab yi jëkkër ji fooye na kanamam gi ba sonn léegi ci ginnaawam gi la koy la koy surux ngemb lay sol pour bañ a puub tubéyam fa mu toog di duula ka dajale rek loolu mën naa yóbbu réew kanam ngeen yaakaar ne pour yóbbu Sénégal defar ko ñu yor ay chroniqueur yoo xam ne dañuy jël xaalis mu jaral leen ñu jaay seen ngor di wax lu ñaaw rek ci Sénégal guddi waaw attentat terroriste attentat terroriste terroriste terroriste Sénégal terroriste noonu lañ koy kiyee loolu mooy terroriste yéen xam ngeen luy terroriste te ngeen ñoo ñaanal jàmm xam ngeen luy terroriste te ngeen ñoo ñaanal jàmm yéen ci business ngeen di dox ay deal yéen li ngeen di def daf yéen xam ngeen xel ne nekku leen ci yoon ay fen ay dil suba ba guddi jot ngeen nekk ci ay duul ay deal jël xaalisu Sénégal bi di ko lekk di duul suba ba guddi jot sirik moom kenn gisatu ko ndaw sa Californie moom kenn déggatu ko a ah, man de gëj naa koo gis xaw ma nag yéen man gëj naa koo gis léegi ñaari pom yi benn pom bi ak genn wàll moo bëgg a dajji àdduna bi duul rek lay def moom ak ñoom Anita ñoom Pa nduur xam ngeen leen mooy mag may mun a nduur fay xam ngeen a nduur fay sénégalais yu bari xamul ne jëkkëram gendarme la jëkkëram moom mooy photographier Ousmane Sonko saa buñ ko jàppee noonu jëkkëru Maimouna Ndour mooy génnee image yooyu ngeen di gis di ko jox Anita ñoom Pape Malick Ndour ñuy jël image yi di ko tas ngeen xam ne Sénégal gouvernement boo xam ne gouvernement délinquant la gouvernement boo xam ne dafa ànd ak ay doomu aadama pour di xeex ay ay doomu aadama loolu ngeen defe ne état boobu état la waaye dinañ ko defanteeg yéen ba mu saf sap billaay wallaay tallaay vous n'avez rien compris waxoon naa leen ne buñ fi ñëwee dinaa mel ni benn ñebbe ci cin te dingeen ngeen jommi waxoon naa leen ko te gisagu leen dara xeex bi day soog a tàmbali rek man ak yéen ba ci géej gi man ak yéen ba boîte vocale maa ak yéen ba géej gi fer maa ak yéen man ak yéen man ak yéen ba ngeen may sénégalais yi jàmm te sénégalais yi bu ñu amee jàmm ñun ñu leen vous devez le savoir ñun Sénégal bu baax la ñu soxla Sénégal boo xam ne c'est pour tous les sénégalais fier de l'être gars yi bàyyi leen ma xel xam naa dinaa ñëwaat ci kanam parce que am na yeneen information incha allahu rabbi bu ñu ñëwaatee ci kanam yu ñu war a partager ak yéen